de mooy mooy xalaas nag moom xalaas n'est-ce pas lu yàlla wax ci li wa annal masaajida lillaahi ah waaw léegi ñii nag moom damaa yaakaar na wa annal masaajida li Macky Sall lañ waaw annal masaajida affaire kay li xam nga ne lii nag lii nag lii nag fenn lañ ko tegul demoom dem ba waa per léegi di jël néegub yàlla di ko def di ko def ay bées marron ah. Sénégal a ngi nii